pawatila amin piko kila agricultural science ko ka fala ko ni non ko bo tekke ala alma tekke ala ba ba kala because nganyinno nganyinno ake moli bu sew moo gën wax bu sew ha de ah. bar mesew wala wala kumata wala kumata diam mesew ko mesew no ngunu noti ah because ina mana mo ngunu ngunu e ka fa e mambarka ta ya jube folo a korosi folo wala nay ko ina mana fo i e furinte ata nyinin ka folo ndel man fu min tel futa ten num bi nda tarla ya jame no ma mo furum buka tara president no ma ah, ni futa de ni futa buka tara e president no man satoti man satota kuma ata bak pour furum e bula no son tan mo ken dol lete disi soy nga nyin kedde ya ko adu mol ben ben bulu jan nanyim boy solution tamba yem moy iman na do ya manna keja ya jube ya jele ko ala len tambindi ndama fansiji aben kala je lumba man sarela ni te lebe groupe kili dole ben fana nyaato bar mbe tento sayndi la sekuna sanema men be yusenta because kumbo da tarakiti ko wala tumo tuma asi tarakito dinna cengori en dema kuelo to ay nana ay na dikadi to aɗum naabtubi tadi kanillaji tan sengoro kallo ñetti hen kuwa koto mba tentula mba jeyta ñaji ɓe jaw wulewol leññinti jabol mam ɗon lata moola bab a ah, fa bagar fati fayda ñin kumfalo o kay mo stop jiibodirolal wol motal ha ah, wol motale because green sama botala doron naaje comme bota kunkol to sayi sayi naata ñin kunkudo fanande to this is why ñin kala do mota ñina mala sekonti wo fana ate tambila ñin ɗo kono ya dina la koncanta jio stop la a dina ñaame wala mu ñin firol dina commencé ta firol bala to mu ñina ta ay e, alat le koy e jio tala jio tala kan sa jibondiro ah, tala sa jibondiro tala kan sa mbé da mo be mola lollo warta do warta fi ala nin cuubanol bara anin mbi mbe daniro kelam faama e ma lafi pour na londo dan jande aye mbulan nin taiwan aɗum nimbeta mampara nga tan nappa ko ma na beta taiwan lafta lon ɗon kafla nga murnan doron gambia ɓe wuude na kuuɗole fola bara konkowote abaraka yurs yurs mo yursi to do nde mamadou keda e keda man sanel kadi yamo nyama a filanten keda man sara nammo lembulo kono fandi bitu e ngalo doron nya jol jolɓe jan do la dolɗaɗa e ya do mo para <laughs> be kane la do ni ɓe jan doron domoro e eh, sudu sen feŋ asifa bele bi janka tan ko do ko ni ka katro ise fen soto mu yalla nako ko banko nya ton ka fanya min bro na fen do ko kamun domo na fen domo kamun do ko wolbe keri njang mooy sànni carte élection suñ ko waxee si Gambia den am na ñetti pàcc benn bu njëkk bi mooy bii présidentiel ñaareel bi mooy national assembly ñetteel bi mooy local government or local authorities election bii dem na bii dem na léegi bii dañoo sénta suñ waxtaan tey wala suñ lecture présidentielle ci lañ doon tànnee président national assembly si lañ doon tànnee néegi député yi loolu yëpp passé na léegi nag lu tax ñu bëgg a ci bii nii mooy mu ngee waajee ñëw te local government election wala local authority comme niñ ko ooyee léegi dafa am solo lool ndaxte local government mooy ñun ñëpp si ay gox lañ dëkka te ci gox bi si nga am authorities wala community bi fi nga dekk fofu la nit ñi gëna nekk nga xamne yo yow sa soxla bala ko assembly national assembly di yëg wala bala mo dem si président dafa gëna a ci sa gox parce que ci gox gi si nga am kansulo si maire yi ak yépp fofu lañ dee nekk ci sa gox légui su ko défé li ma bëgg ngeen xam rek moy ci élection bi ku nekk ci yeen warna dem musani karta ndax dafa am solo torop torop torop kon waruñ ko saagane ndaxte ci élection si mooy waral suñ amee disaster si koñ bi ñu toppatoo ko school yi nga xam ne ni si lañ nekk tey jii nii suñ autorité si ñoo ko defar yoon yi ñoo jaar local autorité yi ñoo ko defar marché yi nekk si gox yi local autorité yi ñoo ko defar even mbalit bi sax si tilimee ak si school bi suñ ko buubee ba pare local autorité si ñoo dee ñëw collecte ko dem sànni ko wala tuuri ko fi ñu ko war a tuur kon da gis ne local government elections yi wala local authorities dafa am solo trop trop trop trop ngeen war ko fulaal war ko fay faydaal su ko defee su bés bi jotee ku nekk dem sànni fi nga xam ne ni foofu la war a sànni kenn koo xam ne ni am na lu mu bugg a laajte wala lu ko leeru ci li nga xam ne ni moom la ñoo jàngal ni tey ah yow. local government election ban njëriñ la si biir bi. mu ne local government election ban njëriñ la am. local government election si soo soxlaa school for example dañ ko dee forward ci um, at national assembly ñooñu suñ ko voté mu dem si government ñooñu defaral la school at the same time gox ku nekk dañ fa dee sponsor ay xale yuy jàngal ku ku mel ni yow ak ñeneen ñi nga xam ne ne ñu si classe bi nga xam ne they are brilliant ñu mun a jàngal lool farlu ci li ñuy dañ leen dee tànna di leen sponsor te loolu local government authorities si ñoo ko dee def soo kon foog naa ne kenn ku nekk ci war ngaa jàng pour sax fexe am ci scholarships yooyu su nekk loolu mbalit si marché yi school si am even disaster management si nii ak disaster relief si nii yëpp loolu la maanaam léeg-léeg nga am laka-laka wala flood fii so ñi nga xam ne ñoo dee dimbale yooyu yëpp local government authorities si ñoo ko dee def so foog naa ne loolu doy na pour si sa tant bi ak keneen ko am lu bugg a leerlu kan lañ war a saanil carte aha mu ne kan lañ war a sànnil karta very important fii ok fu mel ni KMC ak tunda bi nii di Banjul ñoom liñ faa sànni karta ñoom dañ war a am mayors KMC ak Banjul dañ war a am mayor waaye su moyee KMC ak Banjul ci biir Gambia am na 114